asalaamaaleykum bi paase jeexaloon nañ élément de compétence bi ñuy woowe appliquer les techniques d'usinage tey nag dañuy commencer beneen élément de compétence bu ñuy woowe appliquer les techniques d'assemblage ci boobu am na benn leçon bu ñuy wooyee brassage tendre brassage tendre moo nekk ci kon première leçon bi waaw brassage tendre boo ko déggee mooy souder ak étain léegi lan lañuy soxla dañuy soxla ñaari pièces yi ñuy war a souder yi ñu war a boole mooy tube cuivre bi ak. raccord bi cuivre dañuy soxla benn chalumeau butane mbala chalumeau oxyacétylène dañuy soxla gant soxla pat am ton parce que moom la ñuy defee comme décapant dañuy soxla tamit rouleau étain bi dañuy soxla tamit allume gaz dañuy soxla tamit toile émeri mala papier sable waaw mala laine de verre léegi lan la ñuy def dañuy jël ñaari yi ñu war a assembler mooy tube bi ak euh, raccord bi tube bi ak raccord bi léegi toile émeri bi lañuy jël xoos dindi rataxaay bi ci côté boobu ba nga xam ne oxyde de cuivre bi day dëñ moom lañuy wooye oxyde de cuivre mooy loolu nekku ci kaw cuivre bi ñu def ba mu dëñ danga nga koy jël nag danga nga koy appliquer xoos ko vrai vraiment ba nga xam ne dëñ na ci kaw ak ci biir tamit raccord bi ndax raccord bu fekkee ne day épousé wu da nga koy xoos ci biir ba véritablement mu dindeeku foofu noonu yëpp mu vraiment li rataxoon yëpp mu mën a dindi carrément euh, li ñuy wooyee euh, oxyde de cuivre bi boo paree nag ak tamit impureté yi nga xam ne bu fekkee ne peinture bu ci taqoon la mbala leneen lu ci taqoon ndax day tax tamit euh, cuivre bi du jàpp léegi nag boo paree nag li ngay def lu gaaw la da ngay jël pâte damton bi moom ab décapant la moom nga jëw jël ko nga diw ko diw ko ci li ñuy wooyee ci euh, partie cuivre boobu noonu damay dindi damay jël rek comme damay bañ a tax damay jël pâte d'hameçon bi jëlee ko ak étain bi jël euh, er, diw ko gis nga moom laay jël raay bi ci fi ñu war a suude ci tube cuivre bi ak intérieur tamit cuivre bi moom ngay jël raay ba mu rafet gis nga moom la ñuy jël def après nag ba nga xam ne véritablement diw nga fépp waaw moom moom moom laay def nii bi ma paree nag ma jël commencé nag gis nga assemblée ñaar mooy présenté ko après nag bi ma paree nag ma wut fenn foo xam ne foofu laa koy fixé ba nga xam ne boo ko fixé foofu du la du la geneeti léegi moom moo nekk ni nga xam ne véritablement jàppal nañ ko ba mu normal léegi nag nga jël sa chalumeau léegi pâte à soude bi boo boo xoolee moo nekkee ci kaw chalumeau bi da ngay jël jël chalumeau bi taal gis nga da jël taal ko ak allume gaz bi waaw gis nga ba mu tàkk léegi ak boo solee gant ba pare ndax tem boo solul gant nga lakk donc euh, fi mu nekk nii da sol say gants ba nga xam ne euh, lakk la du yombati léegi nag boo paree nga mën a jublu si liggéey bi léegi pour lii doo soxla lunette parce que boo solee soree lunette lunette bi du day lëndëm doo mën a gis li ñuy wooye dépôt de matière parce que étain doo ko doo ko gis ak lunette lunette yu ñuul yi donc si sa bët rek nga ko mën a xoole boo xoolee sax soudure bii nii am na ñu koy defee ak fer à souder mooy yi nga xam ne moom la Euh, élect électriciens yi électroniciens yi di liggéeye léegi nag dañuy jël suñu étain téye ko léegi boo nekkee droitier da ngay jël ak sa ak sa ndeyjoor nga téye téye ko chalumeau bi nga nga ji jël nag di tàngal boo tàngalee doo defagum gum bi danga boo doo ngay taxaw nii rek xaar gis nga ba mu tàng léegi rek bu tàngee rek dangay jël étain bi teg ko ci gis nga gis nga léegi doo doo tegati de doo tegati kii bi dangay ngay teggi gis nga diw diw ba mu normal gis nga bu boo boo boo tegee kii bi euh, chalumeau bi doo tegati étain bi moom ngay jël diw ko ba mu normal gis nga xonq na ba nga diw ba mu normal léegi nag mën nga fay sa chalumeau fi mu nekk nii sa suudir bi baax na fi mu nekk suude nga suude bu normal léegi nag mu des nag nga xool li nga liggéey ba pare léegi nag dangay bàyyi mu sedd bu seddee ba nga nettoyé ba mu set dangay gis li nga suude ni mu normale gis nga boo boo paree gis nga kii nañ seddal nañ ko ba mu sedd gis nga étain bi da koy séen mu def benn ndomb bu rafet ndax température soudure li tax ñu naan brassage tàngoor bi seddal bi euh, ruyal étain dafa ndaw ndax moo gën a ndaw tàngoor bi ruyal cuivre moo tax ñu koy wooye brassage nan lañ def dañoo jël chalumeau après taal ko suude pour assembler ñaar raccord yi liñ soxla woon nag bëriwul donc bagage yi yëpp soxla woon nañ ko bi ñu paree nag ci lañ vrai vraiment am lii nii ñu soxla woon kon leçon bi jeex na kon ñu ngi leen di jox beneen rendez-vous te di rafetlu seen teewluwaay jërëjëf.